On s'est dit, avec euh, le soutien euh, di mouvement Taxawu Mbacké que ñun itam dinañ indi suñu apport ci couverture maladie universelle boobu. ci lañ ciblé daara yi euh, seet ne il y a taalibe yoo xam ne war nañ leen mën couvrir au niveau donc de la CMI ñu jël initiative boobu en collaboration avec le mouvement euh, Taxu Mbàkke ñu jël initiative boobu donc di ko euh, manifester aujourd'hui au niveau donc de de Mbàkke donc loolu moo waral tey suñ teewaay fii ci Mbàkke ñu ñëwoon tey nag def une remise symbolique. Euh, des cartes euh, pour la couverture maladie universelle donc au profit donc des des daara de de de di ñaan yàlla nag moo gën ñoo kàttanal pour ñu mën ko gën a yaatal donc soit au niveau de Mbacké ou bien également au niveau de Diourbel fi nga xam ne foofu la ñu yeewoo tous les jours. du 500 talibé la 500 talibé la et ça avec le soutien donc de euh, Birahim ici présent moo ñu teg ci yoon boo expliqué ñu. procédures yi ñuy utiliser en rapport avec les mutuelles de santé communautaire nan la ñuy def ba couvrir ces 500 talibés qu'on a ciblés au niveau de 6 à 7 daara ñu xool nan la ñuy tànnee pour chaque sëriñu daara ñu tànnal ko ay talibé mën ko en enrôler donc lañ ci def nag amul solo pour man comme je l'ai dit tanto lépp lu ñu am dëkk bi lañ ko amee donc euh, te comme on est dans une politique sociale, une de solidarité, il faut que loolu aussi chaque citoyen puisse apporter lim mën ca lam mën donc mu indi ko ci couverture maladie universelle moom la wax léegi ci kàddu que chaque jour nga gis ko connecté wu jënd pass internet 500 francs à 1000 francs euh, def ci naka su noonu alors que moom ci boppam mënoon na participer individuellement donc à soutenir cette collectif sociale euh, la et de santé donc pour man looloo am solo mooy qu'on nous soyons dans un pays assez solidaire parce que loolu la fi maam yi bàyyi woon loolu la fi maam yi euh, sañcoon donc ci loolu rek la ñuy continuer ñun itam Euh, malgré suñ engagement politique yëpp je pense que social bi tam am na solo trop trop trop dans au niveau donc de ce pays la ndax wax dëgg yàlla daara moom ni ngeen ko waxee rek néew na doole néew doole goo xam ne képp koo xam ne sa xel dañ na ko nga am sa lu baax sa doole wala sa xel mu baax wala sa alal di ko jëmee ci daara di ko jëmee ci daara ak ñooñ daara ñooñ daara moom duñ def lu may ñaanal la yàlla rek la jublu nga mën ko. te àggale ko te loo man ren bu déwénee nga mën lu ko loolu gis-gis boobu daal lañ ci am. gis ngeen ne dina am njëriñ euh, ci yéen. Hmm. li ñu leen di andil. Hmm. waaw loolu de tàmbali la xam nga doxagut daal bu doxee nag buñ gisee ne. ndax ni li ñuy wax daal bu fekkee def nañ ko moom dana ñaamal njëriñ li ñuy wax ndax nawet bi ñu nekk sibur yi dafay bari trop ci dongo yi ak waa kër gi su fekkee nag am na ñu la ci mën a jàppale ñoo xamante ne bii boo amatee dongo bu siburu soo ko yóbboo ñu jàpp ci genn wàll gi nga jàpp ci gi ci des loolu moom wax dëgg yàlla lañ ciy sant yàlla bu baax tey ñaan mu mu mu antu daal. fekk ay ndongo daara nga dugal leen ci ay mutuelle de santé loolu dafa am solo parce que ñëpp a xam ne nii euh, faju ñëpp a ko soxla rawatina nag ñi nga xam ne nii dañu nekk ñoo xam ni dañuy néew doole te ñi leen yore tam amuñu doole ndax daara bi sëriñ bi moom daanaka amul benn revenu boo xam ni mën na ko jàppee ndongo yi mën na leen koo faje kon su fekkee ni nii dafa am parrain bi dafa ñëw ma koddu daal di adhéré en tout cas ay ay ay ndongo daara ci ay mutuelle de santé loolu sant ngërëm rek la ndax loolu dafay dugg ci accessibilité des soins accessibilité financière des soins kon loolu mu nekk lu am solo parce que ñëpp a xam ne nii CMU état ko lancé en pour Euh, les mutuelles communautaires mooy ñi nga xam ne nii nekkuñu ci benn institution publique ou privée di fa liggéey ñu mën a am mën a jot ci paj mi te duñu sonn loolu nag CMI bi moo koy waral te département bi aussi dafa nekkoon département pilote en 2013 kon vraiment lii mu def dafa yaatal parce que bu doon sunu sago parce que état amoon na objectif 70 pour cent de mutuelle communautaire dans le département donc bu fekkoon ni ku nekk dafay def noonu jàpp naa ni objectif boobu danañ ko dépasser kon mention spéciale au donateur. ñu ñaaxaat nag askan bi ci cotisation yi parce que bi ñuy lancé mutuelle yi en 2013 fii nekk département de pilote département pilote nit ñi amoon nañu engouement ñëw. coti eh, ñëw eh, adhéré mm-hmm. mais cotisation yi keroog defoon nañ évaluation fii au niveau district mais gis nañ ñu mutuelle yu bari dañoo nekk léegi à genoux parce que nit ñi duñu cotiser kon nag ñu ñaaxaat askan bi ni leen pour mutuelle bi dund il faut que ñuy cotiser mm-hmm. kon nañ continuer di cotiser loolu mooy njëriñu askan bi mooy njëriñu ñuy faj aussi